kon lii nga kàddu yi nga xam ne ñoo ngi koy wax di ko seere ci yow boo jàkkaarloo na Cheikh Sidi Moukhtar lii lay wax yow ba nga tàmbalee liggéey ci Sénégal tàmbalee liggéey ci sa yoonu maam bii tàmbalee liggéey ci dëkk bii booba ndombo tànk bi yow parce que ñun du ay ndombay tànk la ñu toppee nit mbaa mi di ko xoole wala muy tax ñu jóg sa maire bii nga ko wootee lii tey gannaaw suba bu ñu woon doog maire nga ne doyal naa dem boo ko woote waatee nii ñu fi dikkee leen fii dikkee lii waxoon lañ Ah ndax duñ wax luñ xam te li ma wax ne ba nga tàmbalee liggéey Sénégal yàgg na ñaata ambulance boo soxoon sa sa calendrier tey moom nga joxe ci Sénégal mbir yàlla te fan koy liggéeyantee ji kenn xamu ko kenn fekkewu damaa nga ko liggéey ci jaay ko di jëm xaalis nga def ko ci sa bopp. te jamono yooyu nga koy jël di ko joxe soxla woon nga ko te jaayoo ko def ko ci sa bopp bi ma ci mën seere mooy ñàkk nga ab ambulance waaw ba Cheikh Sidi Moukhtar nga dikk jox ko ko keroog Mor Amadou Amadou Fall ngay dem nii di sa mbokk moom la la booleen ñooy ambulance bu yóbbu leen ko Mbacke Kayor ma nga ca ba nëgën te booba doom bi toogul di sëñ Touba kon yow ba nga dalee liggéey ak dox tànk yu rafet ba nga dalee dox tànk yu rafet dalee liggéey Sénégal dalee liggéey ci sa yoonu maam bi du tey yàggoon ngaa xam li suñu borom wax ci doomu aadama ndax doomu aadama la suñu borom fonk jàpp ko tagg ko tàggatal ko lépp mu gën lépp féete ko lépp wala xad karamnaa banii aadama wa amalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum mina tayyibaati wa faddalnaahum alaa kathiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa yow loolu yàq nga ko xam te yàgg nga koo dox nit ku am yàlla nit ku am teggin nit kuy dégloo nit ku am taalibe nit ku gëm seen tubaab foo doxee ba yem ci loo xam ne daal dañ nit ki da def ci sëñ Tuubaa wala mu wax ko ci lu bokk ci sëñ Tuubaa xëy boo ci dara naqar bu ca kooka di am amaana sax kooka du ca am naqar waaye yow da nga ci am soo naqar ko ndax léeg-léeg ñu dem ci barab am am am ñu fa doxee noo xam ne doxin boo doxin bu doy waar la man man mi nga xam ci man lay jaar nga daje ak man wala keneen ku mel ne man kooka dina ko mën a encaissé ngir jëmmi ka ko yónni waaye yow da nga ca feeñal soo naqar te loolu mooy bëgg sëñ Tuubaa loolu mooy bëgg sëñ Tuubaa nit ku gore nit ku bëgg say bopp nit ku bëgg sëñ Tuubaa nit ku nangoo liggéeyal Sénégal nga nit ku nangoo liggéeyal Mbàkke Bool gi nga dëkk nii fanweeri at yii ma man naa wax ni génn ma ci diggante Mbàkke Tuubaa te luñ fi woote la ci ëpp wujji naa néegi fi seen yëpp xam na